waaw gaay ki nga xam ni yurul benn responsabilité di dem di wuti di indi di leen jox waaye gaay yi kooku lim nekk du dëgg bu du dëgg nee leen ma dëgg bu dee dëgg nee leen ma dëgg la ah léegi ñun gaay yi dañoo waxoon ni ñun amuñu mbooloo amuñuy nit ñu séq jéego pourtant bañ ko dalee def ba léegi gisu ngeen ñu deltu ginnaaw deltu wuñ ginnaaw de te ñiñ joxi responsabilité jox leen xaalis ñu di ko lekk bàyyi nit ñi ñi ngi ci dëkk bi toog gaa yi topp leen ñii bu coow amee ñan la du ñoom ñuñ jox responsabilité jox leen xaalisu réew mi di leen ci fay ñuy lijjanti financement ca kaw di financer seen bopp financer wuñ jigéen ñi léegi ñooñu bu coow amee kan la bu nit ñi meree kan la du ñoom léegi nag kan moo war a atte ki leen jox xaalis bi moo war a xool ñi muy jox xaalis bi ñan la ñun ñi nga xam ne nag yoruñu benn responsabilité ci suñ doole yi bopp ci lañ nekk équipe ñun ay combattant de la liberté lañ dañoo am liberté ci suñ bopp di wutal nit ñi liberté parce que ñi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk nekk arnaqueur bu ñu koy wax waxuñu ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd mi di dab di nangu di ñooñu ay sàcc lañ arnaqueur yi mooy ñuy wuti tur di wuti xaalis ci turi jàmbur yi wëlbati ko di ko lekk te duñ leen ko jox ñooñu ñooy arnaqueur ñooñu nag yéen population bi yéen ñuy war a àtte ak ñoom xool ba xam ñi yenu dugub ak ñi yenu saakoy xetax ñan la ñun yenuwuñ saakoy xetax saakuy dugub lañ yenu te waxtu wu nekk nag bu mbóoyaa wala mu ngelaw tuuti ngeen gis ni li ñu yor muy dëgg gars yi du noonu ah ñun équipe lañ boo xam ne dañuy football ku ñu futbalal bu ñu la gañewut keneen koo dajal mu daan la dañuy politique ku ñu àndal dangay ngay gañe ku ñu àndalut nag na la leer ni jàggi rek am nañ liberté ci suñ bopp nag moo tax ñu dajalewaat baas bi nii ànd ak yéen kenn koo xamante ne tënk nañu jig buum koo xam ne mën nañoo ànd ak moom jamono bi ñu toll ba tënk suñu làmmiñ amut déedéet dañuy defaraat suñu baas ci dëkk bi ak ci monde rural bi ba ëllëg échéance yi di ñëw képp koo xam ne xool nañ ba xam ni moo yor seen njëriñ moo yor njëriñul département bi ñu ànd ak moom te bu ñu ànd ak moom bu boobaa dana gañe li yi yor moomuñu ko dañ cee bokk mbir nag boo ci bokkee doo yaanaan ni wala nga yaafus dégg ngeen wax bi bu baax ñun ay combattant lañ dañuy xeex équipe lañ nag boo xam ne dañuy dem wuti indi jox leen dañu ànd ak Mohamed nekk ci ginnaawam jiital ko ànd ak moom di wuti waxoon naa leen ko ci conférence de presse bañ passé woon dañoo ànd ak moom fas yéene lépp luy njariñ ñu dem jëli ko indi jox leen ci loolu lañ nekk démb ci loolu lañ nekk suba ci lañ nekk tey jii te ëllëg ci loolu la ñuy wéy ñi ngi lancé un appel nag bu foor le président de la république réew mi dañ ko bokk gis nga ñi fi nekk ci réew mi duñ nangu réew mi ñu ko yàq wala ñuy jël yëf yi di ko séddool seen bopp bàyyi ñu duñu ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg gis nga bu ñu attee Ousmane Sonko ba pare Idrissa Seck dossier am nañ ko yóbbu cour nañ ko yóbbu ñu dem xooli ko nañ ko yóbbu kër yi nañ ko yóbbu cour de compte parce que 7 milliards yu 2021 9 milliards yu 2022 mu boole ko këpp ci keesam dem boole ko bëgg a topp rajo yi di wax ak ñaanub xëdd déedéet déedéet ku wax kii nag danga wax keneen réew mi ay loi moo ko tënk gis nga ku jàddu yoon nañ la teg ci yoon ku am ak nit problème nañ la teg ci yoon parce que da ko am ak citoyen sénégalais waaye ku sàcc xaalisu réew mi ñu jox la loo xam ne réew mee ko moom mbënn mi jaar fi covid bi jaar fi nga jël lépp def ci sa bopp ubbi université defoo ci dara jox say doom muy def jox dofi shopping waaye waaye ñun dañoo amuti doom wala dañoo amuti njaboot wala loolu dafa wartoon a ñëw ñun pour lan ñu koy bàyyi noonu ñu yor réew mi yor luwaay réew mi Idriss Seck sept milliards yu deux mille vingt un yi ak neuf milliards yu deux mille vingt deux yi nañ ci ubbi ab enquête parce que loolu mooy tax ñu xam ne réew mi nag dafa tegu ci loi ba ku jàddu yoon wala ku lekk xaalisu askan wi ñu jël xaalis boobu wala ñu jël kooku teg ko ci yoon xaalis bi ñu nangu ko delloowaat ko ci population bi parce que boo demee ci hôpital yi ñu ngi souffrir am na tal am na dëkk yoo xam ne tey jii boo fa demee amuñu courant ñooñu soxla nañ courant am na dëkk yoo xam ne boo fa demee amuñu case de santé ñooñu soxla nañ case de am na dëkk yoo xam ne boo fa demee demu amuñu hôpital ñooñu soxla ñu hôpital demal ci monde rural bi waaw mais milliards yooyu ñuy këpp nag dem di ci defar université pour seen bopp ñun dañ koo soxlawut monde rural bi dañ koo soxlawut gars yi nañu leen waxante dëgg ku jàddu yoon nañ la teg ci yoon bu ñu tegee kii ci yoon ba pare nañ ko teg ci yoon ñun nag danañu wuti indi jox leen ànd ak yéen te ngeen seen i carte jëli leen seen carte yi ngeen téye ko te toog te gën yokk baas bi te xam ne xeex dinañ ko def dinañ ànd ak kuy xeex ñu xeex te buñ xeexee danañ xam ne xeex nañ merci beaucoup